monsieur Mamour Cissé ñu ngi lay euh, nuyu. maa voilà may fàttali suñu auditeurs yi ne suñu ganu tey bi muy Mamour Cissé doonoon ministre d'État doon euh, leader euh, PSD jant bi monsieur Cissé tey jii ñu wax ci mesure d'assouplissement yi nga xam ne njiitu réew mi jël na ko favoriser tey li nga xam ne mooy ñu delluwaat ci liy koom-koomu réew mi secteur informel gis nañ ne yëngu bi gaawaat na yow mi homme d'affaires tey ban jàngat nga ci def. mais. kontaan ci euh, parce que dafa important. Mhm. man li ma gëm mooy que naam feebar bi mbas bi doy na waar trop noonu dëgg la. Mhm. war nañ ko xeex ni ko war a xeexee mais à côté de li ñuy xeex mbas mi war nañu continuer activité économique parce que réew boo xam ne ne euh, l' activité économique su su dee da nga koy xayma ci ci fukk juróom-ñett yi euh, kii la ay secteur informel la. Mhm. kooku soo yeewoo suba teel ne ko dama la koy xeex dootoo ko defeti la mu mën a jur musiba naadu laay la kon le fait que ñu ubbi ko permettre leen pour autant effectivement ñu responsable parce que kat président nee na ku ci nekk tey mettre na le devant tes responsabilités mooy chaque doit être le gardien de son frère. Mhm. man maa war a nekk tey euh, gardien wu li xew sama kër euh, sama soxna moo war a nekk gardien wu li attitude bi may am mais noonu nañu mën a def pour def autocontrôle ñun ñëpp. parce que réew mi ñoo ko bokk hmm. suñu gisee yenn comportement yi ci mbedd mi ñoo ko war a xeexal suñu bopp parce que noonu la ñuy defaree suñu réew gis nga dëkk yi ci génn parce que li leen ko permettre mooy dañu discipliner kon Sénégal on gagnerait effectivement à ce bi taxaw si pour revenir ci affaire économique bi koom-koom bi mais c'était important aujourd'hui parce que man maa ngi ci xolu Sandaga xam naa li gars yi di vivre le fait que ñu tëjoon ko mais mais dafa metti woon trop ci ñoom parce que ñoom c'est au quotidien que ñuy gagner de l'argent soo yeewoo suba teel ne leen ñaari fan ngeen mën a léegi yëkkatu yëngatu ci ci semaine bi euh, euh, deuxièmement à partir de de de de vingt heures il faut que ñu tëj mais dafa jur benn moom benn défiance boo xam ne ne activité économique bi ci secteur bi ak fu mel ni comme Sandaga dafa deewoon complètement parce que gis nga lu mel ni comme seen euh, Sandaga mm-hmm. en moins de six kilomètres il s'est passé au minimum trois quatre cinq six milliards su daan dox bu baax d'activité économique au mais tey euh, bi fi mbas mi yegsee mais c'est à peine su dee cinq cent millions de francs CFA mais doon na circuler foofu kon loolu su yàqul du defar kon moralité il fallait et effectivement heureusement que président la République sur la base de ñiy wax ak moom yëpp ak ñi ko conseil yëpp mais mu jël mesure ne xaaral ma desserrer un temps soit peu étau bi pour xool aussi Sénégal yi seen comportement léegi test la euh, euh, sur l'activité économique test la le fait que ñu ñu ne yenn yenn mosquées nañ leen defere foofu moom dama koy wax carrément d'accord uma ko la preuve maa ngi soutenir tey ñi nga xam ne ne ñoo nekk ci secteur boobu ne du ñu ubbi seen euh, euh, lieu de culte yi parce que su yàqul du defar préparé wu ñu les population te képp ku fi taxaw di wax ne woy euh, juróom benn wala fukki nit ñooy dugg wala ñaar fukki ñooy dugg ci ci ci ci kii mosquée yi kooku wóorul parce que mënuloo leen téye il faut que ñu désinfecter kii tapis yi il faut que gars yi dañuy kolonte kooku mënoo ko dindi mais njàpp bi ñuy def foofu da day tooy conditions objectives yi réunir wu pour tey ñu ubbi euh, jàkk yi mhm. mais sur l' activité économique mais man damay wax ci li ma xam mooy tey suma centre commercial mhm. soo fa demee tey mais benn client ñëweetu fa dugg te solul masque mais léegi commerçant yi dañuy imposer sax gaa yi ñëw dugg si pour ñu raxasu balaa ñuy dugg mhm. wala gars yi jox leen chèque kooku kon su defarul du yàq kon réflexe boobu parce que ñoom xam nañu que tey euh, l' état daf leen defal lu mel ni pour xool seen niveau de responsabilité su dee les mêmes causes vont produire les mêmes effets mais c' est pas à man loolu laa gëm m ak 15 jours ou fii ak un mois président jël yeneen mesures plus hardies par rapport à li situation bi laaj. ndax lii mën na firnde ne euh, secteur informel tey moo yor koom-koom a mi. ah su ko yorewul de li mu ci contribuer bari na. ñoom ak suñu euh, diaspora bi mooy les sénégalais de l' extérieur moo tax mbas mi doy waar alors comme le Sénégal où effectivement. Euh, l' essentiel de l' activité économique mi ngi doon tourner autour du secteur informel ak li nga xam ne ne moom la transfert yi yi immigré doon andi. Mhm. su dee loolu ñëwatul mais état bi fan la naroon jëlee xaalis c' est à dire les gens ne se rendent à dire mooy opposition bi yuuxu mais xanaa xamuñu ne ñoom tey su fi Macky Sall jógoon ku ci nekk yaa ngi aspiré pour ñëw toog fi waaw soo fi toogee euh, euh, nga toog ci fi te mënoo fay say salaire. mënuloo fay tey force de défense et sécurité yi le problème de de la sécurité mënoo ko régler nooy def parce que loolu pour que état mën ko am mais il faut que mu jël ko ci ci secteur euh, économique bi su secteur économique bi dul fay lempo naka ngay mën a jëlee xaalis ma noonu kon la pérennité de l'état nation dafa amoon solo loolu loolu ko koy ma doon permettre mooy koom-koom bi mhm. kon priorisation sécuritaire boobu dafa essentiel tey jii nan la état war a mën a def pour bu jeexee maanaam Covid bi buñ ci paree ñu xool nan la ñuy def ngir euh, gën a encadrer secteur informel bi su ko defee ñuy gën a yëg lii nga xam ne mooy retombé yi. loolu moom euh, c'est des choix. et je pense que président de la République dina def choix yi war. Mm-hmm. Euh, tey il nous faut dans le secteur aujourd'hui bi jël en charge ministère PME industrie dañu war a am ñu xarañ ku kare ko xarañ ci kooku di anticiper pour effectivement. Euh, génie créateur bi ñu bi ñu constaté tey ci ci mbas mi mhm. mais gars yi di xalaat bi bi génne ay affaires yoo xam ne ay intelligence ñëpp gisoon nañu ci ci réseaux sociaux yi euh, chinois yi euh, robot boobu ñu inventé woon muy ñëw ci di taxaw ci bunte yi di di fëgg di joxe plat repas mais tey ay sénégalais polytechnicien vingt trois ans créé nañu lu mel noonu et puis mieux encore yuy làkk tukulóor di làkk wolof di làkk yeneen yeneen dialecte au Sénégal mhm. mais loolu su defaru du yàq il faut encadrer toute cette belle initiative et ces énergies là il faut les encadrer ensuite le secteur informel li may wax toujours informel du métier informel mënoo ci dëkk daay mën la am solo mooy naam war nga ci dugg mais état bi sous forme d'incitation fiscale ak yooyu dafa war la permettre nga jóge ci informel dugg ci formel mais ensuite mais xoolal li nekk tey ci ci ci feu rouge heureusement que mbas mi wàññi na ko hmm. mais mais yeewu ci suba ba ngoon nga gis ay xale yu taxaw ci ci rond point yeeg clé yore ay ñaari Kleenex mais rafetul ah mu wala di jaay ay fruits ci ci ci ci kii bi c' est même pas un problème hygiénique il faut que kooku Abdou Karim euh, Fofana <coughs> ak ak ministère de l' intérieur il faut ñu continuer ci loolu dàq loolu euh, feu rouge du pour jaay euh, image boobu rafetul ci Sénégal. nañu dindi loolu gars yi dem fu ñu war a dem di fa jaay ñu xam ne ne ku bëgg a fruit da ngay dem marché ti leen wala da dem fële mhm. mais nekk ci tali bi di def bi mel noonu ak taalibe yi loolu su yàqu du image boobu ñuy joxe rafetul kon il faut que ñooñu nga xam ne ne dañu nekk ci tali bi nekk mbedd bi di jaay ay ñetti clinique ñeenti clinique il faut que ñu defal leen ay incitation pour ñu toog seen ay dëkk mhm. fu mel ni comme Diourbel war nañ fa def ay mesures d'accompagnement d'ordre fiscal DER war na fa taxaw mais aussi j'attends que le président de la République secouer un peu la caisse de dépôt et conciliation mais xaalis ba fay tëdd di nelaw mais nañ ñu dimbali la mais incité xale yi pour que ñu dem ay Diourbel Tambacounda Kédougou Belengara mais su ñu mënee créer ay entreprise ñu mën leen permettre ñu mën a am loolu en s'appuyant sur deux de nos banques yi nga xam ne ñoo ko moom parce que en période de crise ñëpp dañu am repli BNDE ñoo ko moom Crédit Agricole ñoo ko moom Euh, mais ñooñu il faut que ñu doon les bras et les leviers aujourd'hui de l'état du Sénégal jusqu'à l'intérieur du pays pour ñu mën a def ay incitation ak mm-hmm. xaalis bi nga xam ne mi ngi tëdd di nalaw aujourd'hui à la caisse de dépôt et consignation teguñu ko foofu pour que gars yi di def ay ay ilebu seen vocation c'est pas de faire des tours c'est de d'accompagner comme en en France ce qui se fait waaw la la DPI ak ak la caisse de dépôt et consignation ñoo tey taxaw pour benn entreprise bañ a euh, tëj état pour que euh, les problèmes de trésor li président Euh, euh, nit ci mën a am euh, lu ñu lu ñu fayee seen personnel bi. Mhm. mais banques yi ba léegi jotuñu instruction soo demee seetlu ñu ne la ñoom jotaguñu instruction ana ministre des finances waxul ak ñi ana ministre de l'économie waxul ak ñoom ba léegi loolu su yàqu du defar su dee dañu am problème de tension de trésor mais lu mel ni comme caisse de dépôt et consignation nekk fi warul génn xaalis bi teg garantie caisse de dépôt waroon na tey garantie pour que gars yi mën dem seen banque ñu am leen xaalis parce que loolu bëgguñu li président wax dëgg mais suñu amul xaalis bi naka laa ko gars yi di mhm. kon yooyu il faut ñu def ko. moo tax ma lay wax ne la gis nga euh, nit man maa ngi ni ci maturité bi la mais xoolal mesures yi may gi joxe xam nga da nga mën nga nekk ci opposition mais na ngay xarañ na ngay joxe loo xam ne ne euh, euh, day aider seen askan bi mais doo fi nekk lu yi def nga ne baaxul loolu rafetul. loo bëgg a wax foofu xanaa sortie opposition bi nga gis jamono ji dafa dalul sa xel parce que temps yi gars yi ngeen di wax kenn déggul opposition bi ku ci nekk bëgg a wax. Mhm. un ancien yëpp dégg ko muy muy muy fustigé mais à la place lan bi le président wane ne ñu waxtaan da nga bañ daf c'est trop facile la critique est facile waaw la critique est facile mais tey xam nga lan nañu xaar lan la ñuy def parce que surtout l'heure est grave pour dimbali Sénégal yi sur des mesures d'accompagnement à prendre mhm. mais par rapport à l'État et par rapport à yow parce que nit ki soo koy sooy dimbali sa dëkk da nga koy dimbali te yàlla tax en se disant que tey fi Macky Sall toog war nga fa mën a toog mhm, mais soo ne ma dimbali réew mi tant que toogu ma ci ci bi mais balaa balaa balaa ngay yegg si ba euh, réew mi mës na mën na mën na mën na mën na mën na lu nekk mën na ko dal waaye heureusement ngal la loolu dalul réew mi fi mu nekk parce que le président est en train aujourd'hui il est à l'écoute de son peuple et mesures yi mu jël xoolal aujourd'hui les gens l'apprécient carrément c'est pas les intellectuels yi ñu toog seen biir kalfata seen kii rek ci wax le secteur informel mënul woon bañ a vivre xam nga ñuy critiquer mesures yëpp mais euh, formel nañu xam te formel bi tey accompagné wul kenn teewul kenn et justement ci mesure yooyu la sax tey euh, liggéey bi tàmbaliwaat na ci secteur informel bi waaye ndax dina yomb si ñoom gis ak restriction yi nga xam ne ñu ngi koy jot a gis ah, bu doon tey e commerçant yi nga xam ne dañuy jëli marchandise dëkk ba dëkk tey dina jafe ci ñoom ak ñeneen ak ñeneen. ah tu as euh, parfaitement question loolu kay moom euh, affaire la moom parce que ku xam Sandaga nga xam ne ne l' essentiel du secteur informel tourné autour de Sandaga mais mais euh, en plein temps en euh, dynamisme su croissance bi nekkee activité économique réelle mais daan na tourné ci trois quatre cinq six milliards surtout ay période euh, fête nii mais daan na dem sax pic yooyu ay cinq six milliards mm-hmm. mais tey c'est à peine si à cinq cent millions qui tournent là-bas parce que effectivement mbas mi dafa yàq lu bare parce que le fait que ñu jëloon ay mesures pour que deux fois dans la semaine naam comprendre woon naa ko. Mhm. nañ doon ubbi mais mais loolu li mu yàqoon maa de détaillé la parce que liy caractériser secteur informel mooy dañuy vivre au quotidien au jour le jour pour yóbbu dépense seen kër. Mhm. xoolal da nga daan gis euh, Ndakaaru à partir de heure yi wala ay onze heures. Mhm. ci leen nit ci commencé yónnee transfert d' argent yi seen kër pour joxe dépense parce que il fallait que ñu ñëw Dakar. rey benn affaire réaliser ko jaay benn benn benn portable dugg fii génne fi euh, lijjanti benn affaire door mën a yónnee seen kër donc mm. c' est des o qui vivent euh, au quotidien mm. kooku soo yëgoo suba teel tu ne lui permets pas effectivement d' avoir des revenus c' était difficile maintenant le fait que transport interurbain bi ba léegi ubbeeguñ ko mën na impacter mais comprendre effectivement que am na ay secteurs yoo xam ne ne balaa ñu koy ubbi totalement il faut que ñu xam ci lu ñu nekk mm-hmm. que la am ñoo xam ne lieu de culte yi nee nañu duñ ko ubbi am ñeneen ñoo xam ne dañ koy ubbi mais ñu koy ubbi influence mën fa am bu négative mais pour ñu continuer lool il faut ñu xamaat ko kon il faudra faire une sélection judicieusement protectrice. Mm, waaw euh, permettre effectivement ñi nga xam ne ne effectivement ñu ngi koy desserrer ñi nga xam ne ne ñu ngi ci secteur formel bi ak secteur informel bi nga xam ne day liggéey su mënee joxe effectivement ay signaux yu leer nekk mbas mi jàppaloo euh, testé nañ la mais effectivement mën nañ la permettre nga continuer circuler mais ki nga xam ne ne dañ ko test positif mais il faut ñu continuer ko parce que madame xam nga lan mooy suñu problème. on est dans un pays boo xam ne sur fukki sénégalais juróom ñett ñi analphabète nañu kooku impact ko yenn yi dafa dafa métti ci ñoom ah te dafa métti ci ñoom xoolal tey li li li nekk ci ci ci ci ci mbedd mi ah da ngay taxaw ci feu rouge tey da ngay taxaw ci ci ci rond-point mais gis mais ñi ci di jaay ay fraises ak ñuy jaay ay Kleenex ak mais rafetul d' abord c' est un problème d' hygiène j' appelle le ministre de l' hygiène publique mais mais le jeune euh, Abdou Karim Fofana avec ces belles initiatives là il faut mu continuer des mesures hardies il faut qu'aujourd'hui le ministère de l' intérieur aussi euh, de concert avec euh, ñoom propriété hygiène mm-hmm. mais ñu dax loolu parce que dafa bokk ci facteurs yi nga xam ne ne Euh, dafay andi tey euh, euh, maladie bi mën na fa jàll. Mm-hmm. parce que lu setul musique la mais da ngay tal yu romb kastoor mais sekk leen foofu ñoom ñoo ëpp sa oto yi mais et ci ay conditions d'hygiène ne déplorable loolu rafetul. Mm-hmm, il faut que ñu génnee ci loolu. ku bëgg ci fruit ñu xam ne da ngay dem Sandaga wala da ngay dem fenn pour jëli ko mais ku bëgg def business la mu laaj da nga koy def ah mooy nga am cantine soo amul cantine état bi dafa war a tey mooy li may wax mm-hmm. inciter ñooñu tey pour ñu delluwaat seen dëkk yi. yóbbu leen ñu delluwaat Diourbel ñu war a dellu euh, Mbacké ñu war a euh, dellu Thiès mais ci sous forme d' incitation de ce point de vue boobu laay wax ne que caisse de dépôt et tey lañ doon xaar ci moom mooy que mu mën a jël initiative mel noonu euh, ci kaw mu jàppale BNDE jàppale crédit agricole. Mhm. pour que mais ci dëkk yooyu su xale yi demee foofu di ubbi ay ay ay ay initiative ñu mën leen dimbali. mais barke démb damay damay damay liir benn xale bu am vingt deux ans dafa demoon États-Unis euh, di di tenter ci chance am mais ça marché amul rusul mu dellu si waat mais alhamdulilah tey ma nga ubbi boulangerie mi ngi dans la culture mi ngi def élevage mais mi ngi mi ngi sutural boppam. Mhm. loolu dafa am solo. kon incitation yu mel noonu il faut que état mun ko def ci kaw effectivement ñu am ñu xarañ à la tête aujourd'hui du ministère de la PME de l'industrie pour que initiative yu belle initiative mel noonu ñu mën ko merci beaucoup monsieur Mamour Cissé. allez merci madame. may fàttali ne ñu doon ñoo ngi doon dalal ancien ministre d'État leader du. merci PST jant bi.